di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen teewaay bii ndax lii sëriñ bi def jaare ko ci sëti Cheikh Mouhamadul Fadel yi muy guddi gi day delloo njukkal ki nga xam ne mooy seen maam sëñ Abdourahman ndax alxuraan ji nga xam ne Cheikh Ahmadul Xaddim boole woon na ko ak moom mu xamal ko ko ku ne xam ne def na ca moom ba boole ca xar baax ba yóbbu ko fu féete kaw njort moo magam ji baax ba Cheikh Mouhamadul Moustapha kon lii day delloo njukkal ak ak cant kon yéen ñi nga xam ne yéen fi teewal Cheikh Mouhamadul Bachir ak njaboot gi yëpp sëñ Abul Baraka mi leen di sant bu baax ndax ñi ngeen ñëwee ak cofeel moo ko lal te xar baax yu bari ndax nekk na foofee ci ndindi di liggéeyal sëriñ Touba saa yu toolu taalibe yi noppee mu jël kaamil boole ko euh, liggéeyu mbay ma jox Cheikh Ahmadul Xadim Xaadimu Rasuul